mardi 26 octobre 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 850 tests réalisés, un est revenu positif, soit un taux de positivité de 0,11%. Le cas positif est issu de la transmission communautaire localisés dans la région de Dakar, plus exactement dans le département de Guédiawaye. Toujours dans le bilan du jour, il a été noté qu'un patient suivi a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Trois charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le lundi 25 octobre 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 73 897 cas ont été déclarés positifs, dont 71 995 guéris, 1878 décédés et donc 23 patients encore sous traitement. Le ministère la Santé l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début la campagne de contre la COVID-19,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 mooy dafa am mba feebar bi fekk xamul ku ko wàll wala xamul fu ko jëlee wala ki ko ki ko ko wàll te kooku tamit ci région de Ndakaaru lañ ko nemmeeku toujours ci bilan bi ñu fàttali leen que kenn la ñu déclaré négatif mooy maanaam kooku la ñu saytu xam na ne que mun na génn bos ni ki tey bu ci yàlla àndee ñett malade ñoo nekk réanimation amul kenn ku génn àdduna bésu démb altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi xam ne ñu ngi leen di saytu ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ku ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñaar fukki junni ak ñett yu teg juróom-ñetti téeméer ak ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaar fukki junni ak benn yu teg juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom wér nañ si junni ak juróom téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ñàkk seen bàkkan mu des ci loxo docteur yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen di saytu ci biir kër yi ñaar ak juróom ñaar fukk ak ñett ñoo des ci biir kër yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi des ci lalu hôpital yi